Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buki juliti jullit yi bokki yi ma ngi leen di ziar di leen balaq te di leen balaq aw di jéggelu nak ci yéex a dugg gi ak gëj gi ma fi gëj waaye maa ngi doon topp waxtaan wax dëgg yàlla euh, depuis démb ba léegi ci ñi nga xam ne ñooy wax ci alquran euh, ne diine jëpp ci lañu ko Ah, ñeneen ñi itam ne dañuy wax ci sunna ne diine ji mëne sutte alquran mënta dem te wuñu ci sunna pour xamee ak ràññee ak ràññale ñeneen ñi nag ñoom neeñu lépp ngi ci alquran ndax yàlla leral na lépp ci alquran ndax alquran dafay wàcc si ngir leeral waaw maa ngi na nag naag dégg naa ci lu bëree bëri bëri bëri ci waxtaan yooyu waaye am naa ci nag ay jàngat yoo xam ne euh, am na ci ay jàngat nag euh, yoo xam ne mu mel ni daal fi mu ne kon am na leneen lu bees loo xam ne yaakaar naa ne kon ñii nga xam ne ñoo di wooye ahlu sunna seen bopp ak xawma salafiya xawma am na yaakaar ne am nañ beneen liggéey waaye gëm naa ne lii yépp bu fi amee ñoom cong gu ñu cong diiney lislaam ji fi nekkoon tey diiney dëgg ju ju wér di sunna song gu ñu ko song moo waral leneen juddu ndax sama borom noonu lay doxale ma jël ko ci misaal mu gàtt rek euh, euh, ci nguuru Macky sàll gi ak ni muy doxale ci waa réew mi ndax euh, dafay toog commencé jàpp nit ñi di leen xoqatal di leen gundu xataal mën naa ne ci gàttal ko sànq Karim Wade Khalifa Sall topp ci mu sànq ko songku genn mu ne da koy sank nak det yalla suñ borom nak dal di samp songko, peuple bi jog andak mom ba legi nak sank songko mom ku ko jema sank di nga sanko mo dal Macky Sall waye moy ñi di sonna ni li mo leen dal tay ji nak ni ma gisee mbir mi ñu ngi bëgg daw daw su làqatu su ci ñun ñi di tasawuf parce que xamna ne leneen sëkkatal na leen lo xamne ne fi ne mom tit nañu mom waaw fi ne nak ma ngi leen di xaar waaye nag ne leen wóor ne nun duñ leen fat dañ leen di bàyyeek ñii ngeen di xëccool ngeen lijjanti seen sunna ak seeni mbir waaw nun ñii nga xam ne nun sëñ Tuubaa lan yaakaaroon démb yaakaar ko tey yaakaar ko ëllëg nun nu jàpp sëñ Tuubaa min jàppoon rek waaw mu leer ma ne lii day nun sunu yoon nekku ci ndax nun ay murit la ñuy doon te ay saadix la ñu bëgg a doon te ci leen fa yéenee sax dàkk waaw ba yamal kon nag yéen lijjanti leen yéenu nee na xëccoo leen seeni Qur'an ak seeni sunna nun day lu sëñ Tuubaa na ca man mii nag moom sama diine jii bu déparé ci man ci sëñ Tuubaa la yem jàlluma feneen soxlawuma xam leneen jéemuma gëstu ji leneen lu mu ne daal maa nga ca lu mu newut amu cëg yàq amu cëg defar waaye nag li may dem mooy seetaana dàq jim daje mu mel ni lii malaaka mu ne am na melar ci ndax yéen ñëpp kenn ku ci ne dégg naa li ngeen di wax waaye ni ñu leen sëkkatale nii kon yéen a nekk position défensive te yéen yéen a waroon a nekk ci kaw waaye fii ne dañu leen a sëkkatal lii ngeen sëkkatale nag nit ñi moom la leen yàlla indi la lii mu ne fàng ci seen kaw te dara mënu leen ko ci nag kon nag li ngeen waroon a seetaat seen bopp bu baax a baax a baax a baax xam ne diine lislaam jii fi nekk day sëñ Tuubaa mii li ko diine jaral ak lislaam jaral ko fi jaral ko maam alaaji Malick jaral ko maam ah, Ablaye Niass tàmbalee ko ci Seexu Umar ñoom ñëpp kenn ku ci ne jël sa bakkan teg ñii seeni bakkan des fi ñii seen ak njaboot des ci ñii seeni alal des ci ñii sànku ci lu nekk ñu daj ko ci ngeen xëy xëy dal di jóge fële judduwu leen toju leen ci seen xotti nen wal bëti ne da ngeen di football loolu sànni ko fële da ngeen fiy saxal sunna jéem léegi nag gis nga ñu ñëw nag boole leen nag seen sunna football fële kon nag léegi jéem leen lijjanti loolu yi ba saxal seen sunna soos yi ak ñii football ko waaw léegi nag man moom li ma leen ciy xamal mooy seetaan a dàq jëm man nag aw ma ci yàq aw ma ci defar yéen xam man la may gëm-gëm naa ko man moom li may wax rek moom sëñ Tuubaa laa gëm moom laa gëm tey moom laa gëm ëllëg moom laa yaakaar tey moom laa yaakaar ëllëg leneen aw ma ci soxla kon nag yéen lijjanti leen lii waaw seen ni wax dong la leen yalla fay tay bu ngeen fi tege lu ngeen fi tek ñu dindi ko parce que da ngeen a jëli yi xam-xam ne wéyeey ay ñu jële ci Tajikistan Pakistan Kashmir ak fu ne ngeen jëli ko fa ñew ne da ngeen di ka da ngeen di da ngeen di fagaagal suñu mag ñi da ngeen leen di daj yi da ngeen leen di def li legi nak jëm ñam na yeneen yeneen jëm yu yalla andi yeen itam ñuy daj yi te mu amu leen ci benn pexe yeen ngi ni kenn mënu leen di indi ak yu leen fi wenn lay wu sax waaw te lépp yéen ko teg seen bopp ndax seen i jëf dong la leen yàlla fay waaw donte ñii sax mën nañu ne nit mën naa wedd li ñuy wax waaye du ngeen ko man ndax da ngeen koo njëkk ci ay nit ku ñu fay sa bor nag nga mer la nga leblee baaxut dégg naa leen yéen ñëpp. waaye lii tus ngeen ci dut man yàllaa leen koy nattoo di nga dem ba dootu leen tar sëriñ si ku tëreg sëñ nga sëñ Tuubaa ku léew toog moom yàlla ngay léew tool ak ab yonentam léegi nag lijjanti leen ñii te xam naa ne ay kuréel leen wax pan panel yu bari maa ngi leen fay dégg te fu ñu nekk ak yéen it dañ leen di sëkkatal nii dong léegi nag yéen a ngi daw nag di nu dëgër loo nun waaw man moom li ma leer mooy xam naa ne li ñuy wax nii amees na argument yu gaaw yu ko dindi teg ne waaw am na ci les mën a dindi am na ci lees mënta dindi nag ndax ayib alquran moom bu leeree naññ moom daanaka jaratut wuti leneen lu ko gën a leer waaw waaye nag lii daal seeni jëf dong la leen yàlla fay léegi nag dajji ni ay nit a ngi ay kuréel a ngi ñëw di dajji seeni sunna di ko futbal fële te amu leen ci pexe li ma leen di conseil nag mooy lenn jébbalu ji leen jébbalu ji leen jébbalu ji leen ñi jëli wird na ñu nekkoon ci ay wird wala ñu judd ci nañu dellu ci seen wird yooyee ñii nga xam ne ay taalibe lañu ñu te génnoon ci gaw jéem am na ci nañu dellu ñi jébbalu wut nañu dem jébbalu ji sëñ tubaa fi ne diine lislaam ji sëñ tubaa fi ne jébbalu ji leen te bàyyi caaxaan yi ngeen nekk tànk yéen a ngi caaxaan yi nag lu mel nii du leen ñàkk dal dañ leen di sëkk tël di leen di leen xoq tal ngeen di daw te yéen fi ngeen di daw yàgg-yàgg da ngeen di mujj daw làqatu ci yéen dong parce que yéen a ngi allié ak ñun ci yenn ko tey te mosuma dégg fenn fu ngeen ko jéemee waaw lu mas a jóge ci noonu da ngeen koy da ngeen koy football fële waaw te tey jii maa ngi gis comment commencé nag ngeen ngeen di retaxal sunu diggante waaw loolu nag da ngeen ko war na njëkkee waaw noonu nag noo ngi leen di xaar rek waaw fii sëñ Tuubaa fi nekk jébbalu ji leen bu ngeen di jébbalu rek mucc ci yii yëpp bu ngeen ko defut nag yéen a xam waaw. waaw maa ngi lay siyaare di la balax waaw sans borom ay doxalee noonu sans borom moom am na noon boo ni defee dalay boolee loo xam ne dootoo ko tal gis nga ñii te man panel yu bëri maa ngi gis nii la ñu leen di sëkkatale ñu daw di laqatu ci ñun xam nga ñoom fi ne dañuy dëgërloo sëñ Xaadim Buso dañuy dëgërlee comme ñooñu nga ko waxee te ñii la ñu fi doon xas naan du ñu ay jullit dañuy def nii booleel na ñun ñëpp ciy génn benn saako. waa tey jii nag lii nag moom nañu ko lijjanti ñoom seen sunna sii lépp dagaase nañu ko waaw lépp gaa yaa ngi koy football di dóor fële nanguwuñu du ñu la may sax nga tudd wenn kayit wu ñu bind wala benn xis sa dara waaw. léegi nag nañu lijjanti ba saxal seen sunna door a ñëw nag daxawat nu ci sunna si waaw parce que comme nag dagaase nañ leen ak seen sunna moom te sunna soosu lañ ñu doon tàbbalee sawara ak génn ci lislaam ji a dugal léegi nañ du lijjanti ba saxalaat ko nag ba mu saxaat ñu door a dellu si ci ñoon waaw waaye bi ne mom mayetuma kenn mu ñew ci man naa ma sunna sa fe wala sunna sa gauche wala sunna sa droite legi nañ lijjanti ba sunna si saxat comme dindi nañ ko nañu lijjanti ba sunna si saxat ñu doora del dellusi di genn ci diine ji wala di ci duggal ci seen sunna soosi si ah, man do foofu rek la neen man. waaw kay alaykum ma ngi nuyu ñep di sant ñep di balu ñu baax te di leen balax te ñaan yalla mu boole ñu jéggal. Euh, di baalu àq baax nag fan yi kem ni ma ko waxee fan yi yitte dañoo xawoon a bari tax ba message yi munuñ ko woon a déglu sax ba di ci indi ay tontu euh, kii nag moom yàlla dogal na yónnee nañ ma ay message am depuis bu yàgg sax lañ ma njëkkoon a yónnee ay message am fan yii ci ginnaaw tamit yónnee woon nañ ma ay message am yoo xam ne déglu woon naa ko message yi nag soo koy déglu day mel nii ak ni mu koy waxee dangay gis ne message yu xoromu la. te lépp day wax ak euh, ni ñuy tuddee wahabis yi di wax ne comme maam ñi nga xam ne dañuy delloo seeni wax ci alquran ñëw gii ñu ñëw dal seen kaw ba ba yéen ngeen wut fi ngeen di làqu alors que ñun ñëwuñ di dal ci kaw ñu ñuy tuddee salafiste yi ñun ñëwuñ ngir di dal ci seen kaw ñëwuñ ciblé benn kuréel na ñun kuréel gii la ñuy waxal mais gis naa ne même fan yee maa ngi ci defoon tamit benn ojo am na ku doon wax it noonu la ko def te loolu détourné suñuy wax la détourné suñu objectif wu wax ñun benn kuréel bu mën a doon boo xam ne dañuy ñëw di ko ciblé ne ñun ñii ñooñu tax a jug loolu amul ñun dañuy wax ne suñu borom dafa tere lépp luy xaaj ci diine lépp luy xaaj ci diine kon lépp loo xam ne wala képp koo xam ne yaa ngi cib xaaj xamal na suñu wax am nga ci wàll ndax xaaj yooya xaaj bu ca ne dañoo am ay wax yu ñu gëm yoo xam ne dafa wuuteeg li yàlla wax ñoom du waxu yàlla képp doyu leen dañoo am yeneen yi wax yu ñu sos ginnaaw gi ñu gëm ne loolu ci diine ji la bokk ñu ñëw di leen xamal ne loolu bokkut ci diine yàlla su fekkee ne da ngeen tuddoo su fekkee ne da ngeen di tuddoo leneen lu dul islam ngeen tuddoo leneen lu dul islam mais islam moom benn téere moo koy jàngale muy téereb yàlla. ñun nag suñu wax foofu la jëm mais gis naa ne wax ji ñoo ngi koy wut a di ko moomale salafiste yi mu mel ni ñun dañoo ñëw ne dañuy jàmmaarloog salafiste yi wala nangam ndax mu ngi wax naan fi mu toll da ngeen wut fi ngeen làqu ñu ngi ñëw di dajji seeni sunna di dajj seeni xadiis alors que moom li ma dégg moom mu koy wax su fekkee ne ka tuddoo dëgg-dëgg xam na kooku la mu jàngale wala boog jàng na ay téeréem dana xam ne kooku nga xam ne moom moom lay tuddoo la mu doon jàngale mu ngi sukkandiku ci njàngaleem ahlu sunna wal jamaa dana xam ne kooku la mu doon jàngale mu ngi sukkandiku ci njàngaleem ahlu sunna wal jamaa ndax ahlu sunna wal jamaa seenum njàngale moom la tasaare ci àdduna bi moo gën a yaatu ci àdduna bi njàngale mooma moo yegg si woon fii ñu tuddee ko islaam suñu maam yi loolu lañ leen jàngaloon loolu lañu xamoon loolu lañ daan jàngale ba ci man samay maam loolu lañ gëmoon loolu lañ daan jàngale kon moom ka muy tuddoo ca boppam soo demee ci ay téereem loolu nga fay fekk ndax moom bi muy def réaction yi maa ngi ñëw di laaj li aju ci li wàllu rajmu mooy li ñuy wax lapidation te loolu pourtant moom ka muy tuddoo su demee ci ay téeréem dana ko fekk li ñuy wax naan ku soppi diineem comme ci misaal li ñuy wax naan ku toog ñetti fan julliwoo dañ laa war a rey moom ka muy tuddoo su demee ci ay téeréem dana ko ca fekk te mën naa wax turu téere ndax téere yooyu man jàng naa ko jàngale naa ko ca ba may doon ndaw te loolu mu ngi ci te loolu fan la jóge mu ngi jël mu ngi jugee ci xadiis yooya mu ngi jugee ci la ñuy wax sunna soosa kon gis naa ne ñi ma bokkal groupe maanaam war nañ koo bàyyiloo xel ay waxam su fekkee ne maanaam nangu na ko ko bàyyiloo xel wala boog ñu laabiire ko wala ñu xamal ko ndax la muy wax nii même ku bokk moom la mu gëm tax xam ka muy tuddoo la mu jàngale war na ci kooka mu wax ak moom xamal ko ne ko yow mii kat xaddiis boo yow xaddiis yooyu ngay wax ak sunna soosa ngay wax yow ki ngay tuddoo moom ci boppam loolu la gëmoon te soo demee ci ay téeréem bëri na lu muy jàngale loo xam ne ci foofa la bàyyi ko bëri na lu muy jàngee loo xam ne foofu la bàyyi ko kon moom mbir yi bu mu ko jël di ko moomale salafiste yi wala boog ñi ñuy wax wahabiste yi di wax naan da ngeen ñëwoon fekk suñu maam yi nangam parce que diine joo xam ne parce que islam suñ ko waxee islam juddoowul Sénégal ba nit di wax ne suñu maam yi nangam nangam nangam déedéet man ñu ñuy tuddee salafiste yi wala ñu ñuy tuddee wahabiste yi ni ko nit ñi di wax waaye ñu ñuy tuddee salafiste yi maanaam am na loo xam ne ñu ngi koy def. xëy na defin mën na nekk problème mais am na loo xam ne ñoom ñoo ngi koy def ay nit ñoo xam ne dañuy tuddoo islaam di wax loo xam ne yàlla jàngalewu ko fenn ba pare léegi loolu ñu koy wax ay nit nit ñoo ñu jël ko di ko gëm ñu ñëw di ko dénoncer mais loolu kay c'est normal te jamono moo toll foo xam ne nit ki même su fekkee ne sax ni ñuy tuddee salafiste yi kem ñun ni ñu koy waxee jamono bu ne dañuy ñëw di wax naan nit ñi ci ay bidaa ngeen nekk nangam nangam te ñoom ci seen bopp ci dañoo nekk ci ay bidaa ñoom mais teewul ñu ngi dénoncé ay bidaa mais ñoom bidaa ya ñuy dénoncé ay bidaa yu bees la mais ñoom ñu ngi ci ay biddaa yu yàgg te loolu ñun woyee nañ ko sax video yi ñuy def ku dem am na vidéo bu ñu def ci koor gi euh, non am na benn vidéo bu ñu def avant koor gi vidéo cinquante cinq ñu ngi cee wax yi nga xam ne ay mbir yu ñu sos la mu nekk ci biir diine ji ñoom ñu koy jëf te mu nekk lu ñu sos bu yàgg te ñoom ñu ngi ci di ko dund jàkkaarloog ñeneen di leen wax ne yéen li ngeen nekk ay sos la te pourtant ñoom ñu ngi taxaw ci yoo xam ne rek ay sos la seen tur wi sax sos la mais nag loolu ñuy dénoncé noonu baax na ndax bëri na ñoo xam ne tax nañu ñu commencé bàyyi xel ñun nag dañuy ñëw di wane ne ñii di dénoncé maam ña ñuy dénoncé ak ñi leen di dénoncé ñoom ñëpp ñoo bokk ci liñ ne ndax ñii xëy na dañoo gëm lu bees ñii di leen wax ne lii ngeen gëm lu bees la bokku ca waaye ña leen di wax ne li ngeen gëm lu bees la bokku ca ñoom it ñu ngi taxaw ca loo xam ne bokkul ci diine ji mais kii wax nii ku dégg ni muy waxee jàpp ne na moom li muy wax loolu moom mooy li wér loolu mooy dëgg gi loolu mooy nii loolu mooy naa ba di ci woo sax ay nit te moom moom ca boppam la mu gëm lañ cay jàngale su ko xamoon dana xam ne moom a lu ci ëpp ci njàngaleem ahlu na wal jamaa du ma ci ëpp wala boog la muy wala boog njàngale ma sax ci ahlu njàngaleem ahlu sunna wal jamaa ci la sukkandiku kon gis naa ne ñi mu bokkal group am nañ ay responsabilité ci moom parce que su fekkee dañ koy bàyyi rek mu wax nit ñi ñëw reetaan jàll déedéet maanaam nit su fekkee ne yàlla dafa dogal ngeen bokk nekk ci benn barab mi wax loo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la yàlla jàngaleel boppam te moom mii wax ne moom gëm na gëm na yàlla waaye moom sax dama dégg mi waxee moom dane moom moom diineem fii la tàmbalee fii la yem moom noonu laa dégg mu waxee mais nag li muy wax mën na reetaanlu nii ci kaw waaye nag ku ko bàyyi xel da ngay xam ne li muy wax moom wax dëgg yàlla waxu ko umpale dëgg la moom parce que day gis ñii dañoo ñëw fekkoon seen maam yi doon dund nangam ñuy ñëw di dal ci kaw seen maam yi kon faaw yàlla indi ñoo xam ne day dal ñoom ci seen kaw moom noonu la ko yóbboo ko maanaam moom diine ji da ko jàppee diiney maam te yàlla loolu lay wax na bu ñu ko topp yàlla lim ñu topploo mooy li mu wàccee mu jugee ci moom ndax li mu wax ne wa ida xiila lahum ittabihu ma anzala allah li ñuy wax mooy xaalu bal nattabihu ma alfayna alayhi abaana waxaat na fële ne wa isa xiila lahum ittabihu ma anzala allah ñu ne xaalu bal nattabihu ma wajadna alayhi abaana ama nit ñi soo leen waxee ne leen tee ngeen a topp li yàlla ji wàcce dañuy wax ne ñoom kat li ñuy topp mooy li ñu miinee ci seen i baay wala dañuy wax ne ñoom kat li ñuy topp mooy li nga xam ne ci lañ fekk seen i baay te diine nekkul li ñu fekk suñuy baay diine mooy li yàlla wàccee diine mooy li yàlla jàngaleel boppam te aaya bii rek misaal la ci ndax yàlla lam ñu toppaloo mooy la mu wàccee mu jëm ci ñun loolu la ñu toppaloo waaye toppaloowuñu la ñu miinee suñuy bàyyi waa la nga xam ne ca lañ fekk suñuy bàyyi mais jamono bi yëpp baa ngi seetlu na ñoom su ñuy wax wax ji dañ koy jël di ko windeelee noo xam ne dafa mel ni ñun suñuy wax ibaadu yi ñi ñuy tuddee ibaadu yi ñoom ñooñu tax di wax te ñun ñooñu taxuñ ñoo wax ñun suñuy wax bàyyiwut kenn képp koo xam ne da ngay topp leneen lu wuuteeg téereb yàlla di ko tuddee islaam ñun sañuy ñun suñuy wax day jëm ci yow képp koo xam ne sax da ngay topp téereb yàlla ca boppam di ca dugal lu ca bokkut su ñuy wax day jëm ca yow képp koo xam ne sax day wax ne téere bi yàlla lay topp du ci dugal sax la ca bokkul suñu wax day jëm ca yow ndax ñun lenn rek a ñu ñor muy dëggug yàlla lenn rek a ñor muy diine yàlla ji di islaam ñëwuñ nag di ciblé benn kuréel di wax ne dañuy bàyyi beneen kuréel wala nàngam ñun suñu cible benn cible la mooy képp koo xam ne yaa ngi bokkaale kàddug yàlla ak leneen moo xam ab téere la moo xam sa xalaatu bopp la moo xam leneen lu mu mën a doon yàlla ay waxam lu leer la ay waxam lu mu faram-fàcce te lépp lu aju ci gindi gi bàyyiwu ca dara waaye képp ko xam-xam nga ne ñun lañ ñu jàngaloon démb ak bërki démb képp ku gëstu xam nga ne loolu njàngaleem ahlu sunna wal jamaa la loolu moo fi nekkoon ñu ñuy wax suñu maam yi loolu lañ loolu lañ loolu leen jàngaloon loolu lañ jàngoon loolu lañ jàngale loolu it lañ daan jëfe ndax moom mii su fekkee ne day jëfe fekkee ne moom maanaam moom day jëfe la ñuy jàngale fii ci diine su maam par exemple su jàppoo fekkee danay jàpp moom mi wax ci audio fekkee danay jàpp su jàppoo noonu muy jàppoo noonu fu mu ko jële ci ahlu sunna wal jamaa la ko jële su fekkee dinay woor waxtu wa muy ndogu fu ko jële ci ahlu sunna wal jamaa la jóge suy julli day biral ak yellu suy biral ak yellu biral googu muy def ak yellu googu muy def fu ko jële ci ahlu sunna wal jamaa la ko jële na muy jullee ca boppam sa fekkee danay julli fan la ko jële ci ahlu sunna wal la ko jële su gëmee ne ku sangewu dañ raj mu gëm-gëm booba pas-pas booba ak àtte booba fan la jóge ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen par exemple su amee su fekkee ne yàlla dogal na mu am njaboot soo amee doom nañ koy tudde xaar ba mat juróom-ñetti fan nga ne da ngay wut am gàtt noddu fii li xaam fii fan la ko jële loolu njàngale mu ahlu sunna wal jamaa la di ak feet ya ñuy def korite tabaski yooyu fu mu jóge njàngaleem ahlu sunna wal jamaa la te loolu ñun moom lañ fekk suñuy maam di ko def ñun loolu lañ fekk suñuy maam di ko def kon wax ji nekkul na ñun dañoo ñëw di cibler benn groupe wala nangam ndax ñun dañuy wax ne dëgg rek a ñu ñor ab suufi su ko waxee dëgg la ab sunit su ko waxee dëgg la ab katolik su ko waxee dëgg la ab yahud su ko waxee dëgg la ab athée su ko waxee dëgg la ñun dëgg rek a ñu yor ndax dañuy wax ne dëgg ki koy wax ak ñi koy dégg kenn moomu ko dëgg yàlla rekk ko moom moo tax loolu alalu yàlla la ñun ku ko mën a wax wax na alalu yàlla ma ñu gëm ñun su benn kuréel ci kuréel yooyu di wax ci moroomu kuréelam te la wax mu nek deug go xam yalla ko jangal ñu dañ ñaan ah sha allah li de deug la waye nak yeen ñi nga xam nak nag dal ci kaw ñële yéen it bàyyi leen xel ne yéen ngi yéen ngi kaas ci ñële wala yéen ngi ngi sa ñële waye war ngeen a xel seen bop ndax yéen ngi faté seen bop ndax yalla dafa am lu mu jàngale ci alquran an-nasa bil birri wa an an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum lum ca tek wa antum al-kitaba afala takhilun ndax da ngeen di nit ñi ak mbaax ba noppi fàtte seen bopp te kat yéen a ngi tari téere bi wa antum tatluuna al kitaab c'est que alquran lii saxal na yàlla téere bi képp la ñu topploo lii saxal na yàlla lam bëgg ñu cay dellu téere bi kepp la dafa bari aay yi ma wax sànq rek misaal la ci wa iza qiila lahum ittabihu ma anzala allah léegi si wax ji nu mu leere wa izaa qiila lahum ittabi'u maa anzala Allah suñ leen waxee ne leen topp leen li yàlla ji wàccee li yàlla ji wàccee kay wax dëgg yàlla loolu kay werante amu ca xam nañ ko téere bi la yàlla su waxee ataamuruuna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum lu mu ca teg wa antum tatluuna al kitaaba te moo ne kat yéen yéen a ngi tari téere bi waaye lu mu ca wala boog da ngeen dul xellu ñun nag lu ñu bëgg mooy ngeen xellu rek conscient xam na kat yéen lii ngeen di joxoon nit ñi mais yéen a ngi tari téere bi mais bàyyi leen xel téere bi di ngeen fa fekk loo xam ne dana leen joxoñ ndax bëriwaane lu ngeen di wax bëriwaane lu ngeen di jëf loo xam su ngeen jàngoon su ngeen tari woon téere bi su ngeen tari woon téere ba mu jeex du ngeen ko fa fekk kon li ngeen di wax naan nit ñi lii maa anzalallah biha min Sultan. yéen seen bopp am na ci loo xam ne maa anzalallah biha min Sultan? maa te loo xam ne yeneen ko gëm te loo xam ne yeneen koy jëfe ba ci tur yi ngeen di tuddoo sax ay salafiya nit ñee amee seeni tur lu wax tasawuf ci biir tasawuf ñu am seeni tarixa yéen seen biir noonu ngeen mel ci seen biir bëri waana lu ngeen di jëf loo xam ne maa anzalallah biha min Sultan. te yéen a ngi koy wax nit ñi bëri na lu ngeen gëm loo xam ne maa anzalallahu biha min sultaan ndax loolu jamono bu ne ñu wax ko képp koo xam ne yaa ngi woor benn fan yaa ngi woor lu dul weeru koor nga xam ne yow wooroo weeru koor fayo weeru koor képp koo xam ne yaa ngi koy def ba pare loolu ngay def nga koy tuddee diine foo ko jële amul delluwaay kenn du ko fekk ci bi yàlla loo xam ne du ab àtte nag laa wax de. lo xamne ne du ab àtte li may wax moy wër yi ay wor yi ñi wor ay nan bisu arafak ay num tuddu wa ay kadzu rajabak ay nisfu sha'banak ay ashura yoy xétu wër yoy ak ñetti fan yi ñi wor ci biir wër yi ni wax naan di wax naan bisu lèr yi yoy yëpp fuñ ko jëlé ma anzala allahu biha min sultan te bari na soo doon lim du jeex atte yi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci téere yi su loolu sax su ngeen di comme kii nag ki nga xam ne moom mooy wax ni moom nga xam ne moom kamu gëm sax su demee ci ay téeram dana ko fekk ray ku murtat dañ ko fay fekk loolu ku ko jàngale ma anzalallahu biha min sultaan kon moom su jàppee ne ñun la ñuy wax waa ahlu sunna moo ko tax a jug moom umpale na lam moom ca boppam la mu nekk sax umpale na ko moom sa boppam sax kamu gëm la mu jàngale umpale na ko kon gis naa ne ña mu bokkal groupe war nañ koo mën a maanaam laa biire ci loolu ngir moom it mu taxaw seetlu waat xel xam ne waa ahlu sunna taxawaay ba ñu am ba ñu war a am ca sunna soosu ñu gëm ñoom ñoom ñooñu it même taxawaay boobu lañ ca war a ndax ñoo bokk même delluwaay bi kon du loo xam ne dañ yéen da ngeen koy puus waa ahlu sunna naan waaw comme ñoom ci biir ahlu sunna dañoo am ñoom it seen tur comme li ñuy wax maam comme li ñuy wax salafiya ñoom kon nekkul ne comme ni ñuy tuddee salafi yu na yi ñoom ñoo war ñëw ne dañuy defendre nangam dañuy défendre sunna si wala dañuy défendre hadis yi loolu yéen ñi nga xam ne it dangeen a nekk ci tasawuf loolu la leen waree yéen it ngeen défendre sunna soosu ak hadis yooya parce que seen pas-pas lu ca bari foofu la tegu su ma dul wax lépp nag suma ma su ma mënul wax lépp dama naan lu ca bari wala boog lu ca ëpp foofu la tegu ah kon nag wax dëgg yàlla am na mbir yoo xam ne maa mat na bàyyi xel mat na xelaat mat na xelaat man des fois su ma déggee yenn wax yi maanaam nit nit ñi mën nañ ko dégg di reetaan mais dama naan lii nag lu doy waar la parce que am na xeetu réer goo xam ne réer gu sori la. te soo nekkee nit ñoo xam sax ñoo la tane au moins war nañ la bayilo xel na ah yow da ngay faral di wax nangam waye nak nangam gi waron nga bayyi xel nangam ak nangam ndax mom lamuy tuddo nonu xeyna nam koy waxe man man musuma yor pas-pas bobu pas-pas bo xamne da ngay naka manam du andu tak du andu tak genn ragne gi mom musuma yor pas-pas bobu waye mom lamuy tuddo mom fami wax na fara bokk man mi ci loolu la bokkon ci loolu la jiddu ci loolu la mag ci loolu la yoro samay baye ak samay mam ci lañ kon nag wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne lu mat a bàyyi xel la waaw kon ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum